waxtaan ci eh, ku tedd kooku du Cheikh Abdoulaye Mbacké itam da ngeen a am cër boo xam ne eh, war na noo bokk di waxtaan waaye rawatina nag bu ngeen jógee ci ku mel ni sëñ Sidi eh, di waxtaan ci ku mel ni Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu baax ma nga xam ne defar na fi loo xam ne walla yokk na fi loo xam ne euh, luy defar di wéy rek la sëñ lool ak defaram hmm, mu ngi dox ba ba ba léegi te kan xamul it fu mu yem hmm. ndax sëñ bi euh, murit yëpp ak lislaam bépp amoon nañ toogaay yu baax waaye bi mu ñëwee da ko yokk ndax Cheikh Abdoulaye saa bu ma wax sa pas-pas yokku saa bu sa pas-pas yokku loolu nag yàlla ak yonent ak Sëñ Tuubaa rek ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko mën a fay waaye Sëñ Abdoulaye de moom ku doy waar ndax ni doon yare nit ñi ak ni leen doon defare dafa dafa àndoon ak teggin yu rëy rëy rëy ànd ak fulla ju rëy rëy ak fit wu rëy mm. sëñ Laat ni meloon li doon doxal ci defar nit ñi keneen ku ko mosoon di def ñu ragal la waaye moom ñu eh, mu doon defare dafa dafa dafa dafa dëgër ba noppi lewet loolu nag lu jafe la waaw wax ji moo ku ko mës a dégg eh, te newoo ci li nga war a nekk melu li nga war a mel ku ko ku waxin boobu ku ko ku ko euh, ngay ñi ngay defar danañ ànd ak ànd tiitaange waaye seen blaat euh, doxin woowu la doon dox ba noppi sa da koy gën a bëgg ndax dangay ngay yëgaale ci biir wax ji lawet gu mu lewet ak njariñ njëriñ njëriñ njëriñ lu njëriñ lu wóor loo xam ne dafa lay wóor ne moom la la bëggal moo tax da nga ko da nga ko daan da nga daan da yëg yoo xam ni yi lu jafe la seen lot mm-hmm. boole koog di dimbalee ci yoon wi ak fépp fu ne njëriñam daana fa dem boole kàllum yu baax mm-hmm. yuy defaree man de benn benn benn benn eh, bi nga xam ne moom léppam laa jàpp sax ndax ku bëgg lu baax euh, léppi sëñ Abdou Lahad ngay jàpp. lu mu mës a wax rek. te nga bëgg lu baax rek da nga koy jàpp. loo mës a gis mu def koy euh, daf lay daf lay yokk pas-pas rek. moo tax yi ma yi ma doon jàpp ci moom bari na. mas naa ko jox itam nag benn kaamil. boo xam ne. Euh, wax dëgg yàlla euh, gis naa ci baatin ña fekkoon ba ma koy joxe gis nañ ci baatin euh, booba soxna moom yi mii ma nga fa ca jotaay ba ak sëñ ma sëñ mare ma daam ak alaay Cheikh Touré ba dëkk ngir ngi new dëkkoon ngir ngi waaw ak ñeneen waaye bari woon booba lay soog a kër gi booba daf koy soog a sanc sa defar rek te eh, booba seng yi fi ne booba kër gi lépp seng la néeg yi mu def ci bi kees gu ne benn néeg la fa def ak benn mbaar rek yop lépp seng la ma ñëw jox ko téere bi fekk mu ngi toog ci benn canapé nii te ab tabulier ci wetam euh, bi ma ko joxee téere bi jëm bi nga woon téere ba téere ba téeméeri kayit ak ñaar fukk la maanaam isib bu ne ñaari kayit laa ko def waaw maa ko bind waaw bi ma ko joxee mu xool xool xool ba yàgg mu teg ko ci tëbale bi am nga kees booba daana am ñaari kees yu sësaloo waaye day am bunt ci diggante bi mu dal di jóg kees gi ne woon dugg ci geneen kees andi benn jaafira jaafira jaafira xam ngeen jaafira dal di ñëw fab téere bi roof ko ci jaafira ji mu yem képp waaw képp képp képp wul di nekkul lu lu kii lu ñuy puus puusal muy ngir mu xacc wala mu dugal ko ci manqué daf ko jee def mu mel ni moom lañ ko def mu ne la lii doy na war mu ne jaafire bii de benn waaye ma ko fi joxoon rek moom ko ko fi andiloon euh, ma teg ko foofu ci ci la wax buufee bi ci kaw buufee bi ba ba ma ko fa tegee maa ngi koy door a jëlaat nii waaw moom loolu doy na waar euh, am na it ay baat yu ma fa yooyu moom dama koy bàyyi <laughs> waaye xam naa ni daal mu mm, ngi doon attaaye booba yor yor la nag mu naan tuuti dal li may jox kaas bi des bi xaaj bi ñoo fa noonu ñëpp dal li may xaw a mel ni ñu ñu ci itewoo bëgg ma maanaam mosal leen ci sëñ sëñ sëñ dan mare madame moo ma ne bu ci bu ci jox kenn bu jox kenn de naanal yow rek ba ñëpp toogee nag ba dal nag mu ne ma <laughs> man di xanaa man xanaa nag ma ma ji kenn rek ma bàyyil bàyyil ma far ko rek boobu am na am na am na am na am na am na ci loo am naa loolu woo na ma fii benn bis belal ma dem fa euh, moom itam moo fa demee am na keesu keesam gu mujj ga daal defe naa man néeg boobu sax ca la ne ca la nelawee ba néegu kaskaare bu mag la bu fekk ca gannaaw am na benn euh, kii euh, pant pantre pant boo xam ne benn néeg rek la tabax waaye même mu fete nele benn néeg dang la am ñu defe naa dañ ko seng ci kaw xaw ma foofa nu dem fa waxtu xiwlu nag nu dem fa di xiwlu Modou Alaaji Modou Mamoun Niang mi ma nga fa ak ñeneen ñaar eh, xam nga amoon na eh, gisin woo xam ne ci ku mel ne laat xam naa ñu bari sax moom lañ amoon mm. waaye man dama ko doon yëg ci sama dama ko doon yëg-yëg bu metti ba tax na bi bi nga xamee ni wóor na ma ne euh, barab bii nu ne nun ñii doo nga fi ne ak seen laat loola rëy na ci man rëy goo xam ne biñ demee di xiwlu man xiwlu ma dama mos suut si jóg fekk moom ma nga ca néeg bale toog nun noo dem fele ca ca néeg alaaji Moodu Maamu néeg dama yow koy gannaaw euh, añoo koy demal bu seet sa baay ba xam loolu noonu ma jóg léegi nag xam nga moom moom mu ngi toog ci bunt bi nii tànk yi da ko seen waaye doo seen bu boo fekkee boo jógee nee nag da ko seen waaye bu fekkee danga nga jógee ci néeg bi ñu newoon ay fii rek ngay seen euh, ba may ba demit ci moom it maa ngi dégg muy jàng mooy bu ca kaw jàng yi ñu mel ni Fallou Ndiaye ñoom di jàng waaye gannaaw man ñembi bu ma ci moom dëgg may def nii rek bëgg mu gis ma. def tappale taalibe yooyu rek nga xam ne fexe ba mu xam ne yaa ngi yaa ngi waaw. ak xaddam bi boobu waaw mu seen mu seen ma nag. dama ñëwul Abdou sëñ la ma wax. dama ñëw toog ci kanam la mën a nga def ma ne ko maa ngi fi rek Mbakke di ñaan nga yàgg fi. mu ne ma. waaw maa woolu damaa bëgg nga bindal ma ab kaamil waaye damaa bëgg nag mu doon bind mu dijj waaw bind mu dijj maa ne ko noo ko bëggee rek Mbàkke dinaa ko def noonu waxtaan waxtaan waxtaan ba ma taal samay loxo mu ñaanal ma ba may dem bay dugg ci bay bëgg génn bunt bi ba génn ko tuuti mu waawaat ma ñëw mu ne ma na fexe ba mu doy waar de Eh. nu mu doy waaw mu ne ma nu mu doy waar rek da nga doy noonu waar. waaye bi ma ñëwee fekk nag bi may dem nee naa maa ngi dem belal sëñ bi ma woo. bi ma ñëwee ma jaar ci néegam ne ko man de dem naa ba ñëw. mu ne ma ah ma ne ah, gis nga sëñ ah, ah, maa ngi lay siyaare xam nga moom taalibe la moom itam. ma ne ko waaw yàlla yàlla nangu siyaar bi mu ne ma mu ne ma ne ko man li sëñ bi dafa ma dafa ma doon woo ngir binduloo ma mu ne ma ah ma ne ko ah, sant yàlla ma dal di ma daal di ma daal ne ko waaye ndax booba nag fekk na mos na maa dem fële fu ñuy wax Madina Mbay ca njub wetu njub ngent àndoon ak saam maam Mor sama rak eh, ma gis nag muy barab bu bari ay mbañ fa la mm-hmm. xam naa ni mbañ fa la ah. waaw xale bi mbañ fa la eh, ma ne ma jàll li ne nag foofa laay dem mm-hmm. ndax bant yi ma soxla daal mm-hmm. foofu rek la la la mën a am bi ma ko waxee daal sama ndey ni ñokkete ci lal bi fi mu fi toogoon uh-huh. daal di dem ci wuti armoire am uh-huh. daal di koy tijji génn ci benn benn benn euh, benn sayu bañ fala boo xam ne dañ ko dagg ba mu jekk ba rafet ma ne ah, lii lu mu xam nga suñu saam moomu soxnaam euh, soxna may ko wàcce woon may galas euh, yàlla dogal bi muy am doom fekk soxna si mu ngi mu yebal fa sama ndey ngir mu mu ngénte ji ko ci Madina mboobu googu mën na roon a dem. Ah, Madina Mbaye nga ah. mu ne ma ne ko lii nag foo ko jëlee mu ne ma kii de Madina Mbaye laa ko jëlee. loolu <laughs> xam loolu daal. téere booba bi ma demee ñett ñaari dal laa def ba xare eh, ñaari dal laa ca def guddi ji lool. ak bu bu yem bu xaw a dijji nga xam dañoo ëppante rek ci biir kër Sëñ Fallu laa ko tam laa ko defee Alaaji Mbàkke mi mu ne bëgg nag moom a ubbil néeg bi ñu defar ko ko la yóbbu daay ma defar ko fa defar yëpp ba mu jaar yoon bi ma ma daan ni nag léegi ñaari dal yi naa ko yët sëñ bi mhm. ba xam bu ko ci bu ko ci gën a kii di boo ñëwee fekk mu mu toog moom itam yoon woo moom moom dong laa fekk ci ci ci kii bi daf ko ubbi rek na ma ay sëñ sëñ sëñ mbind mi doy na waar de te mu daal daanaka looloo tax na waar yooyu mu wax daal ma ne ko wax rek naa naa noonu moom ji ko bind ndeysaan waaw waaye doy na waar ji moom jam waxoon moom wax na waxat na ko ci lan waaw doon defare nit ñi lim leen doon yare te loola lépp bëggal nit ñi lu baax rek moo tax yàlla dogal mu mu mu mu dem sëñ siidi mii fi ne ñëw rek di moom fulla jeeg ak taalu begeeg mbaax gi lépp mu ngi ci si moom mi moo tax ma ma bëggal ko sama bopp moom sëñ si li fa demee nag bu ma fa mujjee rek ak léegi ma ma ma ëppul ñaar fukki ma ci biir koor gi la waaw ci biir koor gi rek ci bis bi bisu korite gi la waaw bisu korite naa korite gi dem naa fa moom it ndeysaan mu bëgg ma lool ba ma xam ba ma yëgal ko sama li ko ñaanal mu yàgg fi nag bu baax di ñaanal ku tedd ki sëñ Muntaxa nga xam ne mooy sëñ Tuubaa mu yàgg fi moom it ak njabootu sëñ Tuubaa yëpp di leen ñaanal te nga xam ne sama wax ci lu mel ni ñu koy dégg du bari waaye lu jóge ci sëñ Sidi jaar ci yéen ñëw ci man euh, du ma ci ñemee gàtt dama ma ci boole ñaari yëf du ma ca du ma ca sañ a waaye euh, duma ma ca bëgg gàntu itam waaw du ma ca bëgg gantu euh, du ma ca du ma ca du ma ca ñemee gàntu ndax ndigal la am na ko ma ci waxtaanal benn bis suma xaritu tubaab bu fi ñëwoon nu dem kër sëñ Saaliw moom di ko di ko siyaare ji eh, fekk moom moomu mu am tappi jullikaay bu mu jënde woon France eh, ñëw na ngir ngir nu yët ko bi biñ demee fekk nañ fa sëñ Fàllu mu sëñ Soyibu eh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ bi ñu waxtaanee ba noppi sëñ Saliou wax sëñ Fallou am na benn néeg bu ne ci tabax ni mu ne nañ ñu yóbbu foofa mi nag sëñ ba sëñ Saliou sëñ falu sax di tooñ naan ah ndaw ngan guy neex nga ganale sa doom waaw ah, dana war a neex de <laughs> léegi ban demee nag bay xiwul nag di waxtaan nag ki baaxu uh, njabooti sëñ tuwaay rek mm. waa bañ demee ba kii man li ma la li ma xam ci ñoom buñ ma ne woon naa leen jàng bu mokkal leen ñoom ñëpp ku ci ne ma mokkal na ñoom mën ne su leen a mokkal sax mm-hmm. waaye ñu jàng leen ba ba ba ba xam ba xam ci ñoom lu bari mm-hmm. ma ne ma ne ma ne leen keroog man buñ ma ko waxoon mm-hmm. duma leen jàng ñoom ñépp kenn rek laa ciy jàng bu mokkee rek danaa mën a tariñ ci des waaw kon diggante sëñ Fallou ak ak sëñ Blaat rek la demee waaw koo ci koo ci mokkal rek mokkal nga ki ci des ba ñoo bokk luñ bëgg bokk luñ bañ liñ bëgg ñoo bokk nuñ koy bëggee liñ bañ ñoo bokk nuñ koy bañee loolu loolu waaw moom lu mu mës a wax euh, day yokk sa pas-pas lu mu mës a def day yokk sa pas-pas euh, wax naa la ko sax ci tàmbali bi ne la moom ni mu doon defaree ni mu doon yare euh, daawul gaañ kenn maanaam nga dégg ko mu. blessé la wala wala yooyu dawul moom foo ma sa déggee waxam dëgër dëgër dëgër dëgër dañ ciy bég bégte la lay jox xam nga xam nga xam nga ñu bare bari buñ la dee defar dañ lay jaarale ci yoon yoo xam ni yi day metti daanaka buñ la ci jaaralee sax lañ la lañ lañ la bëgg a defar lañ la doon jàngal sax daanaka doo ko mokkal ndax day waxin ak doxalin wa ak melo day metti si laat moo moo lay moo lay defar euh, nam lay defare nga bég ca boole ca ak bo boole ca boole ca defaru ca loolu moo moo a kii euh, Cheikh Abdou Lahad Mbacké dafa doonoon jëmm yoo xam ne yi daal dafa doy waar loo euh, ba tax na ni mu daan yare nga xam ne ak dundam yëpp liggéeyam mooy bëgg yar nit fas yéene yar nit ñi defar leen rek mooy ci yoonu taalu bi ak yoonu lislaam loolu moo doon liggéeyam waaye lu mu doon yare ak nu mu doon defare nga xam ne loolu ay waxam la ay ndimbalam noonu la meloon ndax nun dañ daan faral di toog ci buntu kër sëñ Baara am na garab gu fa newoon foofu nga gis jàkkee sëñ Moussa ji nekk fi sax fi la fi fi kër si keesu sëñ Moustapha moomam foofu la woon nga xam ne boobu tukki xewagul boobu mbàkki mbàkki yu ndaw yi daanaka ñëpp Tuubaa rek lañuy ne amuñu daa boobu tukki xew tukki yi xew léegi xewut booba nga ne buñ xëyee rek dañuy dem ci kër mel bokk ko dem daje fenn di waxtaan ci sëñ bii di waxtaan ci yooyu rek moo doon moon suñu ité boobu alaaj baara nag bëggoon nu nga ne ku ci xëy rek li ngay sa xel di nekk mooy dem buntu këram toog xam nga buntu kër sëñ baara boobu nag ak fi fi sëñ bi amoon na buntu boo xam ne bii eh, ca ca ca koñ ba la ne woon jàkkaarloo kër laaj baara lan fa daan toog xëy toog suba ba une heure waxtaan rek waaye léeg-léeg gis benn remarque bu sart bu fees rek ceeb wala dugub wala wala wala bant wala seng ñëw arrière ba dugal genn wàll gi ci biir kër gi rek ñu wàcc déchargé euh, yooyu remarque yi daan wàcce nag sëñ bi amoon na ci këram ay ay oto yu ndaw yu ñuy wax quatre cent quatre camionnettes ni remorque yi déchargé noonu lañuy ñuy chargé ñoom itam di dem dangay ngay gis remorque oto boo xam ne bi bu ndaw day chargé ba nga xam danga da nga naan ci oto bi léegi léegi léegi léegi mu laal pën yi ndax ndax chargé bu fees rek dal di départ te yu bari ñoo ñëw woon ci kër bu benn départ ba dem rek ba ba balaa bu dellu si rek tasanteeg benn di départ loolu moom moom euh, noonu lañ noonu la oto yi doon def. te li ci doy waar mooy da gis oto yoo xam ne dañuy chargé dem léegi delsi léegi nga xam ne yooyu soriwuñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dem ci ñi gën a jege waaye léeg-léeg daa nga toog itam nag nga gis oto bu chargé nga toog fa ba dem te du delsi nga xam ne boobu fu sori la jëm bu ko defee ci ngay xamee ne kon ndimbalam yi mu daan def mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi ñëw dem fu jege waaye mu ngi dem fu sori loolu loolu loolu ñu doon ko nu seetlu eh, ñu mu ñu sar si ceeb ba fees dem sar si ceeb ba xam daan dem ci ñoom mooy ñi nga xam ne la sëñ bi du yóbbu dañ koy soxla mënuñu koo ñàkk te amuñu ko xam nga kooku bu oto jékki-jékki kala sa ne ci buntu kër ñu kooku sëñ bee fi yónnee xam nga kooku eh, lu rëy fekk jóge na ci moom noonu euh, moom la moom la doon def te loolu oto yi doon yóbbu nga di ko nga di ci teg sa bët lim daan def ci dimbal loo ci poste lay dem moo ëpp te xam nga ku mel ni sëñ Abdoulaye nim nim nim nim nim nim ni mu amee woon itte ci defar nga xam ne fu mu toll mu ngi ci kooku googu jot euh, mu boole ko dafa dafa doy lu jafe la dafa boole woon ñaar yëpp loo ci natt rek mu tolloog morom li mu doon defare li muy rëy rëy li mu doon dimbale noonu la toll moo tax mu koy ñaanal daal yàlla yokk ay waaw ñi nga xam ne ay néew doole ne nekk ci biir kër gi mbaar yi foofu ma sa dem da fekk mu fees dal ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee kenn xamul ñooy ñan nekk fa fees dal rek man danaa ci nett loo xam ne li may wax ne sama tur li tax mu bari ci lu ma lu ma dund lay doon xam nga li nga dund nag boo bu fekkee moom nga bëgg a wax faawu nga faawu tur génn ci am na benn tabaski boo xam ne euh, ba ñuy waaj a julli ji xam naa boobu ju boobu jàkka ji jullikaay bi fees na penc meeg mbedd yu yëpp fees nañ xam nga boobu sëñ bi dem rek lañ moo des moom la ñëpp di nekk benn waaye jékki-jékki rek ñëw ak ak mu ak fitna andi yor xar moo ni mu toll jaar ci buntu kër soxna may bi ñëw dugg nga bi muy yeew xar mi mu ngi yàkkamti ndax ci ñi war sëñ bi bokk te bëgg a départ sëñ nga xam ne yoonu diggante kër sëñ toll bi ak ak kër sëñ Abdou Borom dër bi bi mu yeewee xar mi foofu la daw jaar. Euh, diggante boobu man benn waay la laa laa ko laaj ku ne woon foofu koo xam ne fekke na jotaay ba mu ne ma sëñ bi de moo jékki-jékki laaj ndax yóbbul nañ la Karim am xaram ma xam ne xalif général mu Mouride buy bëgg julli ji oto bi gaare nit ñi koy gunge ñëpp taxaw jàkk ja fee ba jullikaay ba fees na fépp fees na mu fàttali ko loolu kooku xam nga ni bayu dara noonu la meloon lépp lu lu lu lu baax du ko fate waaw loolu daal ah moom moom xam naa ko ci buntu kër laaj baara boobu nu toogi doon toog itam noonu ma ko waxee rek daf noo bëggoon lool ndeysaan ñu bëgg ko di fa dem boobu si boobu suñ baara doonagul sax xalifa suñ Fallu boobu suñ Modou fi ne suñ Modou it bëggoon nañu waaye responsabilité xalifa gi mayu ko woon mu mu mën nu mën di toog ak moom lu lu bari waaye léeg-léeg nu namm ko rek dama fa siyaare ko léeg-léeg mu woo ci kenn fàttaliku la war la ne mas naa ko wax suñ Modou ne ko damaa bëgg a def commerce suñ Modou Bousso mu ne tekk ba yàgg mu ne ma ah doomi suñ Fallu de mën naa bañ a def commerce doomu Sëriñ Fall na jaamu yàlla rek mu ne moom boo jaamoo yàlla rek li ci des sa bàyyi dana ko dana ko dana ko jox sëñ Modou mos na maa xam nga am na solo. xam nga sëñ Laat ku mel ni sëñ sëñ Laat day jàngale. yooyu ñu ñu ñu di ko ñu di ko ñu di ko def ci ñoom lañ koy jànge ndax niñ koy jànge ci ñoom mooy ñoom dañoo baax ba xam nañ ne lu ñu def rek lu baax la. moo tax boo bëggee ne ci yoon wi te lu lu mu lu mu lu mu tuut tuut nga domp ko ci sa bopp def ko ci yoon bi da ngay xool ci ñoom waaw xalif général de murit itam dafa dafa dafa euh, euh, man euh, dama mën sa toog fi ba yàgg xam nga mbàkki mbàkki bu sëriñ bu ndaw rek day day responsabilité lay jëkk am ci wërsëg da nga am ndax responsabilité yi moom booy judd tuuti ba dem def mu tàmbali te wërsëg bi nag moom du du du du gaaw <laughs> nga xam da ngay jaaxle di ba mës naa ba yàgg ma ne damay dem rek hmm. waaw damay dem ba fu ma dem ba xam ne kii na rek ma toog fa nga xam ne du boolewuma ci ak wàññiku dem waaw dem rek laa laa laa moo doon sama programme waaye wàññiku boolewuma ko ci ba ma demee bu Burkina Faso guddi ga ma fa jëkk tëdd nga ma jëkk fanaan sëñ Blaat feeñu waaw maanaam gént lañ koy tuddee waaye am na gént yooyu ni mu lay dikkee da ngay xam ne lii lu ci ngay jëkk ci laa jëkk xamee ne xalif général de Mouride yoon wi da koy koy def nii mu ne ma foo jëm ma ne ko ah, man damay dem mu ne ma wàññikul waaw bi ma xëyee sama yaram wi dafa fasu ma fas yéene wàññiku waaye bi ma xëyee ndekki sangu daal di daal mu mel ni daal eh, li li ma doon yëg ni li li ma doon yëg sama yaram dafa deñ ma décidé waat ngir jàll te décidé war naa wàññiku ndax ndax li ma yëg ci guddi gi ci gi ci topp eh, sëñ falu ak Cheikh Amadou Bamba ñoo ñoo ñoo ma feeñ ci guddi gi ci topp rek de xam nga sëñ bi moom def na responsabilité moom moo jëkk a ñëw moom Cheikh Abdoulaye waaw sëñ sëñ Fallou Cheikh Amadou mel ni dafa lu ne ci miir bi taw sëñ Fallou jàll si ba ci lal bi ma nekk téye ci téye ci tànku lal bi ne foo jëm ma ne ko man de damay dem rek xam xam fu jëm ma ne ma wàññikul li nga fi fi nga jëm da nga fay fekk li nga bàyyeeku gën waaye waaye njaag moom dafa dafa di àdduna ne bàyyi ko rek mu dem bu bu jógee fii te jëmul Sénégal eh, fa jëm du fa yegg loolu la wax moom loolu la ci àddu moom suñ. moom suñ loolu la ci wax rek gisatuma leen keroog Ndakaaru laa fanaan ah. xam na. ala am na fekkoon naa fa benn doomi alaaji àlla Sàmba bu baax ndeysaan ku ñuy wax alaaji Sàmba Gey bi ma xëyee ba woo ko ne ko wutal ma billet Sénégal mu ma ah sëñ bi ku baax baax a baax te murite moom moo dagal ma dal di ñëw fanaan ci Ndakaaru xam nga waxtaanu télé ak ki dafa ki waaye lu lu loolu lu gudd la ba sama ñëw del si Touba guddi na ndax bi ma sëñ sëñ bi waxee ak man dafa jàpp sama yaram ba bi ma ñëwee ndakaaru bàyyiwuma waaye munu xam naa ne Tuubaa lañ bëgg lañ ma lañ ma lañ ma fas yéene yóbbu moom waaye boobu gëj naa fii tam gëj goo xam ne munu ma woon ne bëreet rek dal di ñëw ci laa mooy nekk googu ma nekkoon ci kër Assane Mati Ball booba lépp maa ngi maa ngi maa ngi war a ñëw te mënuma mënuma gëdd ñëw ma toog fa ba yàgg ma dellu si ma soog ak si Touba toogaat naa fi ab ab ab diir lu ma ñaari at ñetti at yoo xam ne juróomi at mënumaa dem Dakar daanaka waaw ba ma demee ba ba a jeex takk nag ci sama yaram ci laa soog a demaat Dakaaru mooy mooy nekk gi ma fa nekkoon noonu yàgg muy joon ñibbisi rek nga xam ne wàññikul googee daal moo ma delloo si waat ba ma ba ma toog Tuuba seenu mbaax li tax mu am solo euh, dañ ko dul baax rek téye ko mu yem ci ñoom dañ koy jàngale euh, boo dee ku ku mën a jàng nag di di di jàng la ñuy la mel ñoom euh, lépp ngay jàngale fim ne bu fekkente ne yaa ngi def dara ku mu nekk ku nekk ci yoon bi ku nekk tey def lu baax ci ñoom ñooñu nga koy jële buñ dee buñ dee wax lu baax ci ñoom ñooñu nga koy jële loolu ñoom loolu mooy seen seen seen liggéey dañuy dañuy defare luñ moo tax lu luñ def rek euh, boo ko boo ko boo boo boo dee boroomu euh, xool da nga da ngay tibb ci la ñuy def di ko téye fi mu nekk nii loolu euh, defar gi ak ak ak xëy na yàlla dogal na ma siiw ci waaye daanaka euh, marabu yëpp ci loolu lañ nekk xëy na ëppali ci noo koy defee wala wala loolu rek moo ci nekk waaye kenn ku ci nekk lum tut tut tut ci loolu la nekk dimbalee ci jikko ak ak ak xiwal ñoom ñëpp ci lañ nekk képp koo xam ne kii mës nga euh, xam nga sëñ Fallou bi bi bi bi bi Lamine ñëwee ci li ma dégg sax boobu man yooyu yëpp maa nga kër sëñ xaas xam nga man foofu laa féete woon moo fa jógee ca euh, daara ji rek laa jëm waaye euh, ñu ma doon ñu ma doon dégg seen nett itam Euh, ay nit lañ yoo xam ne ni daanaka lu ñu la wax moog loo fekkee mooy ñooy ñooyam ndax euh, am na wax yoo xam ne yii euh, ci ku mel ni man mm, boo ko déggee du du waxuma sax nettali ko waaye da nga ko dul gëm sax waaye am na ñoo xam ne lu ñu la wax rek dafay mel ni loo fekke ndax na nañuy nañuy mel ak fa fa ñuy fa toll ci dëggu moom mooy tax waaye dégg naa euh, lemin Gueye ñu wax ne bi mu fi ñëw moo fi njëkk a ñëw bi ñuy campagne mook Senghor euh, am na nu sëñ bi jëflanteek moom ba ba ba ba Lamine xaw a kii waaw xaw ca xaw ca nee nañ ma ñaxtu nañ ca sax tuuti ñaxtu ba xam naa ko xam naa xam naa la sëñ bi def ak ak waaye loolu daanaka dëddul jar di ko di ko leeral euh, waaye Senghor eh, bañ ca tegee ab diir Senghor ñëw bi mu ñëwee mm, sëñ bi dalal ko eh, kër alaaji mortut ñang bale ci Mbakke eh, fa la yendu sëñ bi mortut ñëw sëñ bi jox ko ab lim mm, jox ne ko jox ko Senghor ne ko mag ko dimbale ci ci ci campagne bi ba ñuy ba Senghor ba mu ko joxee ba Senghor di tàggoo si bi mu ñëwee delloo sëñ bi xaalis bi ne ko Mbàkke sa ñaan rek laa bëgg sëñ bi ne ko ah, man de sëñ Tuubaa rek laa am te maa ngi ci liggéeyu euh, jumaa ji bu fekkee boo toogee dimb nag ma ci dimbale di dana danaa la ñaanal da jot ci li nga bëgg noonu waxante nañ ko fi sëñ laat tànk yooyu nga xam ne nga xam ne sëñ bi sëñ Fall lu taxoon mu jàpp Senghor mooy jumaa ji rek liggéey bi mu ko bi nga xam ne te ndax <clears throat> ba mu toogee la mu ko la mu waxoon la Senghor la mu waxoon loolu rek la def waaw moo taxoon sëñ bi jàpp sëñ laat loolu ñu ngi dégg ñépp ci ci ci waa nguur gi koo ci dégg ñu ne waayam la xamal ne kuy kuy ku la la la tax mu doon waayam mm-hmm. mooy jàppale ko sëñ rek mm-hmm. jàppale ko am na waxtu mu fi waxee ne euh, nañ joxe ndigal ci Abdou juuf waaye boobu dara taxul lu dul Abdou juuf euh, jàpp sëñ Tuubaa rek li de am yu muy def ci dëkk bi yooyu waaye boobu jàpp jàppatoon sëñ Tuubaa moom daal ñoo kuñ kuñ jàpp rek sëñ Tuubaa tax waaw kuñ xaritool rek sëñ Tuubaa tax sëñ Abdoulaye moom benno gi moom dafa am baat jum ci waxoon yu leer yoo xam ni dafa dafa dafa dafa dafa ku dégg rek xam ne leer na ñoom doon wax ci ñaar ñu bokk ndey xam nga ñaar la ñu bokk ndey nga bëgg a tam ki bàyyi ki ci des eh, loolu mënu mënu mënu su ko dégg waaw ah, ah waaw noonu la ko waxee ah, te boobu lim ci jublu mooy bëgg a wane ni ñoom ñoom l'islam bépp ñoo ko bokk eh, kon ginnaaw ku ci ne yaa ngi doxal la ngay doxal mu rafet ci lislaam euh, boo ko bëggee euh, tuutal ci ay mbiram wala yooyu kooku yenuwul maanaam loolu la sëñ bi wax na waaw léegi euh, moom nekk na fi daal doon sëñ Tuubaa mu mat sëkk ba jógee fi rek ñëpp di ko ah man li ma li ma doon wax daal mooy. Euh, xam nga euh, yoon wi. Euh, lu diis la. ku ñuy ku ñuy ku ñuy koo xam ne kii doonoo sëñ tubaab toogoo ci daram bi doon ko ndax sëñ day yoon wi moom. Hmm. sëñ Tuubaa lim ci defar dafa bari te ñooñu ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ñu ngi defar ndax ndax xam nga sëñ bi euh, bu lay bu lay bu lay bu lay euh, bu lay defar bu lay bu lay tey tibb ci boppam def ci yow bu ko loola moom ngay mën a doxale li nga war a doxal ci li bëgg waaye bu boo demee ba doon euh, toog ci der bi nag moom ngay doon moom mooy moom léppam lay fab def ko ci yow boo dee ngay moom waaye yoon wi ne ku doonul sëñ Tuubaa bu bu bu mët sëkk sëkk sëkk sëkk nga xam ne dara dara dara dara dara desut doo mën a téye yoonu ñaari fan waaw mënoo ko téye ñaari fan moo tax sëñ Muntaxa mii fi ne fi mu ne man wax na ba ci sëñ monsieur di Muxtaar bi ci yàlla ñu ñu ko jiitu ñëpp musuma euh, nangu euh, diw mi fi nekkal sëñ Tuubaa yooyu diw sëñ Tuubaa rek laay wax man ko fi mën a nekkal rek euh, man man sëñ Tuubaa ngay doon ci man waaw du ma wax ne yaa ku fi nekkal du ma wax moom dama la koy tudde rek te xam ne moom nga ndax xam naa ne summiku na ci yow léppam waaw te boo gisee ku ci ku fi ku fi nekk xalifa